أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura yunus tey ñu jël ñaari aaya aaya 104 aaya 105 ñaari aaya yoo xam ne ñu ngi ciy jëlee ñaari mbir yooyu ba ca jiitu mooy alal mu'min an laa yatruka al xaq mahma shakka wa mahma shukkika fihi nas mbokk jullit yi dana war ci ab jullit way gëm yàlla ki ne moom dafa gëm yàlla dina war ci moom mu màtt dëgg ci ay dëgëjëm bañ koo sànni ak lu mu métti métti nga jàpp ci dëgg bokk na tey ci li ñu indil problème mooy ñu ëpp ci ñun dañ naan waaw dëgg la de waaye nag dëgg amul waaye yàlla dafa wax yonent bi ci alquran ne ko alxaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin dëgg mooy lu bàyyee ko ci sa borom bul sikki sàkka moo tax jullit dafa war a jàpp ci dëgg xam ne lii mooy dëgg dee ci nga bàyyi mbalit mi ak wax ji ak lu mu bëri bëri coow li lu mu tar tar yow dëgg moo la intéressé yàlla nee na yéen doomu aadama yi dëgg bàyyeekoo na ci yàlla ñëw ci yéen yàlla yàlla laaj na doomu aadama yi ne leen fa maza baadal xaq lu mu ci rek illa dalal yàlla nee na ginnaaw dëgg lan moo leen intéressé ti diine islam bii nuy dund lan la ci doomu aadama di di di di doyee dund lan la ci doomu aadama di def lan la ci doomu aadama soxla lu dul dëgg kon boo demee ba gis dëgg lu mu metti metti ngëpp ko màtt ko ak say dëgëj bu la ko dara bàyyi loo bàyyi xaj yi ñuy mbaw yéen a jàng ci tubaab ngeen ne caravane bi day passé xaj yi ah wala du lool ngeen jàng yéen a jàng ci tubaab ne caravane bi day passé di dem xaj yi est-ce que caravane bi dafay arrêté dem di xeex ak xaj yi bu paree takkaat dem yoonam su fekkoon ne gëléem yi saa yu leen saa yu ñu rombee xaj yi xaj yi di mbaw loolu sax dafa sori parce que yéen xëy na xamu leen ay caravane ak gëléem parce que dëkku leen ci àll kaw yi oto yi ngeen gis yenn saa oto nga gis benn benn xaj buy dàq oto borom oto bi day taxaw xeex xaj bi bare duggaat ci oto bi taal dem wala lu muy def yéen bàyyi ko foofu muy mbaw ab jullit noonu la war a def mais bokk na ci li ñu indil tey problème tardeel ni mooy ñemewuñu dëgg da ngay gis ko jàpp ci dëgg ñu ne ñu ne ah waaye mais affaire dafa xaw a metti quoi c'est man su ma waa kër ñëpp ma bàyyi temps yi man amatuma ay mbokk amatuma ay xarit amatuma ay àndandoo ama mais loolu mooy nature diine bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu juddoo ah màkka fu mu màggee màkka fan la mujj dëkk lu tax dëgg bi dëgg la indi gaa yi bañ mu génn bàyyi leen fa dem yoonam kon dëgg lu mu metti metti dañuy jàng tey ci sunu aaya yii an laa yatrukal xaq mahma shakka ak lu ñu sikki sàkka lu mu metti metti yow jàppal ci dëgg nit ñi lu ñu sikki sàkkaal lislaam maa ngi seetaan benn vidéo tey Macron président France muy wax ci lislaam ah ne diine bi ëpp problème ci àddina bi tey mooy lislaam di diaboliser lislaam àdduna bi yëpp xam la lañ def pour xeex lislaam ak sunna moo tax même coow yi ngeen di dégg sax ci biir Sénégal bàkku yeeg nganda ngandalu yeeg wane yeeg yëpp dara yow daal jullit li la intéressé mooy dëgg dëgg su feeñee jëlal jeex na tàkk leneen lu dul dëgg ëllëg yowmal xiyaam mbalit la yàlla safara la ko jëmee te xanaa jullit moom ndeysaan waroo xool sa bopp ëllëg yàlla di la dugal safara kon dana njàng tey ne dëgg dong moo ñu intéressé dëgg moo tax lislaam ñëw dëgg moo tax yàlla yónni yonent bi loola tax yow jullit bi mënoo dund diina ji te dëgg boobu màttoo ko ci say sa sa dëgëj kenn war la ko bàyyiloo bul bokk ci ñi nga xam ne dañ naan la waaw wax dëgg yàlla man xam naa ne lii ngeen di wax nii mooy dëgg waaye nag bul bokk ci ñooñ yow sa bopp ngay lor soo demee ba xam ne lii mooy dëgg li yàlla wax mooy dëgg li yonent bi jàngale mooy dëgg alquran mooy dëgg sunna mooy dëgg lu dul loolu mbalit la pënd ak poussière la nga bàyyi ko fi yow yow ban doomu aadama nga ndax du musiba nga ne waaw man de dëgg-dëgg xam naa ne lii la yàlla wax waaye nag loolu du musiba ndax du musiba nga ne yonent bi lii la wax waaye nag léegi léegi dama koy wax ci benn benn miraas léegi léegi watagul 24 heures watagul une heure de temps waa ji laaj na benn laaj ma ne ko lii la ci yonent bi wax mu ne waaye mazhabu Malik ma ne ko yow xanaa da ngaa bëgg dem safara da ngaa bëgg a alku te paa la sax de yama yàlla ma yàlla jégal ndax li mu wax rek moo ma métti ma ne ko yow xanaa da nga bëgg a alku mu ne ma lan laa def ma ne ko ma naan la yonent bi nee na nga naan ma mazhabu Malik yonent bi nee na dafa jarati teg baat ah iza qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras imam malik da daan sangu malik moom ñuy wax di ko tuumaal di ko jéem a jaxaseeg yonent bi malik ci jàkka yonent bi la nekkoon di jàngale ñetti ndomba tànk la malik takkoon ci biir medinatul munawwar ñett keroog bañ ko tegee ci ndeysaan ci mbaam mi di ko indil ay jafe-jafe di ko dóor jaaral ko ci mbeddi Madine mbooloo mu ñu gis ñu taxawloo ko nit bu ñu ko tegee ci fas boppam fan lay jublu ah su ma waroon léegi fas sama bopp fan lay nekk ci bopp fas bi moom dañ koo tourné ginnaawam moo nekk ci bopp fas bi kanam gi moo nekk ci geenu fas ga saa yi gisee mbooloo ñu droité ko ne ko waxal weddi li nga waxoon mu nekk maay Malik ku ma xam maay Malik ku ma xamul maay imaamu Malik maay imaamu jàkka yonent bi maay jàngalekatu jàkka yonent bi maay attekatu jàkka yonent bi maa ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza alqabr gaa yi continue dóor yi loolu bokk na ci li indi muy julli di wàcce loxo parce que yii ñoo yàqu loxo yi mënatul jóg sénégalais bi boo waxee ñu ne la yonante bi moo doon julli la ko yee deen metti moo doon julli naan ni ñoom xamawuñu ñu sax bu ñu soq ak bu ñu bojj sénégalais yi ñi ci ëpp xamewuñu loolu am na ñu bëri yore ñu ne waaye yonante bi ne la doon def wax nañ ñu ko ndax nee nañ moom loxo du yonante bi di Malick la moom Malick ndeysaan bu nekkoon ci jàkk yonante bi gaa yi ñëw di jàng di jàng di jàng bu gisee kuy jàng si xadis de koy xaar ma ma ñëw day dem kër ga sanguwaat soluwaat yeneen yére kaalawuwaat tuure parfum daal di peñe sikkim bi daal di ñëw toog frankulaayu suñu ne ko lii nag mu ne xadiisu yonent bi lay jàngale Malik daa bëggoon yonent bi ba biir Madina daaw fa sol daal tànk neen la dem nee na man fu ñu suul yonent bi du ma dox ci kaw suuf soosu di sol daal benn bis day jàngale xadiisu yonent bi jiit ndeke jiit a ngi ci suufu sijaada bi mu toog jiit bi daal di ñëw ci tànk bi di fett ko fekk boobu nee na qaala rasulullahi jiit bi dóor ko yaram bi kanam gi daal di changé mu continuer xadis bi jiit bi dóoraat ko mu continuer waat xadis bi jiit bi dóoraat bi mu paree jàngale taalibe na ko waaw imam yow luy sa problème tey mu ne lan la mu ne ko yow bi nga may jàngal xadis bi gàññ nga ñetti yoon ñetti yoon sa kanam bi changé na ñàngal ñàng benn ñàngal boo xam ne mu ne ko wallahi bi may jàngalee xadis yonent bi benn jiit moo ma doon màtt ci sama tànk bi di ma fett te xaw ma nu may def rus naa dagg xadis yonent bi rus naa dagg xadis bi waaw kooku tey bu ñu koy nekkee nekk ci ndànd foy ko fee ba naan Malick ban Malick Sénégal dañoo gis pëndu Malick ñoom dañ naan ci ngiru Malik lañ nekk jegewuñ sax pëndu Malik waxuma laa ngiru Malik ñoom kay se- ngiru kii lañ nekk ngiru kii ngiru yàpp yàpp yàpp rek yàpp Sénégal yi lekk rek lekk lekk kese waaw kese kese koo fi dégg muy coow naan yéehée yàpp riirandoo yi ngeen di gis yëpp xam ngeen la la yàpp wallaahi bu ñu ne woon woor kenn du dem bu ñu ne woon na ngeen woor fu fi ku fi ñëw juróomi fan di nga woor ngay ku ne bon waaye ma def ko sama kër lekk rek wala gis nga jaamu yàlla yi am lekk wala nuñ ciy sonne gis ngeen tabaski xaru ñaata la ñuy xëccoo xaru ñaata ngeen di xëccoo tabaski ah xaru ñaata ngeen di xëccoo tabaski waaw xar gel sama xar yi waaw ku nekk nag jënd saxar takk ci bunt kër gi nag est-ce que ku amoon béy di nga ko takk ci bunt kër gi ah fii ci biir jàkka ji damay laaj ku fi yàlla nattu woon jouru tabaski nga am béy sa waa kër ñoo lay njëkk a wax ne ñawal gémmiñ ji gis naa benn waay di ñaw allahu akbar gis naa benn waay ci facebook bi muy mu dugal benn téere ci gémmiñu béy di ko ñaw gis ngeen ko ah laa ilaha illallah ab téere la waa ji dugal ci gémmiñu béy bi di ñaw gémmiñ gi béy bi naa mu ñaw gis naa ci facebook bi ñu taal benn gas benn pax ba mu xóot taal ko ba mu tàkk diri benn nag sàng sàng ko sagar bu xonq dugal ko ci biir safara si bu nag bi bëggee génn ñu bës ko nag bi di lakk benn waay nee na ma Mali la xaw ma fan la nag mais benn waay daal nee na ma loolu moom Mali la xewee ah jàpp nañ leen man léegi nag ñu bëgg àdduna bi yërmande am fi ah yéen sax loolu sax loolu sax moom ay ay ay ay mala la parce que démb lii xew fii ci kaawu militaire yi loolu ay nit dinañ ko def ay nit ni dëkk ci 40 ans fenn nga ñëw ak njabootam génn bagage yi di sànni ci biti xanaa sax bu ñu soxlaa foofu ñoom ñoo ko moom mën na am délai mën na am négocier ñu utal leen fu nekk parce que ñooñu dañoo servir réew mi dañoo tuur seen deret gis naa ci kenn koo xam ne amatul tànk nee na bal lañ ma dóor bi ñu koy dóor bal est-ce que këram moo taxoon Sénégal moo taxoon ñun ñu tëdd di nelaw ñoom ñu nekk ci front yi mais ana ana ana yërmande yërmande moo jeex ci àddina bi kenn amul yërmande ah xamoon na ko ay rey ngeen leen ba ndeysaan li woon nee na waa ji doon wax nee na ndeysaan événement Sénégal Mauritanie dafa am benn naar ndeysaan gars yi dañ ko tiim di ko dóor ay jaasi mu naan laa ilaha illallah benn waay ne rayal naar la waaw mu ne laa ilaha illallah benn waay ne naar la rayal laa ilaha illallah waaw ndeysaan imaam ali dafay xeex ak benn waay muy dóoranteeg waa ji ak jaas yi di dóor waa ji di dóor di dóor waa ji arrière ba ci àgg waa ji daal di tiit daal di ne laa sànni jaas yi ne laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah imaam ali sànni jaas yi daal di xëcc waa ji taf ci dënn bi gars yi ne ko eh ali lu tax reyoo ko kii dafa ragal mu ne benn baat dong moo taxoon may xeex ak moom wax na ko jeex na sama mbokk la benn baat boobu dong la mooy laa ilaha illa allah tout court looloo tax il faut ñu bàyyi xel ne dëgg moom la ñuy dund dëgg dëgg moo intéressé doomu aadama yi dëgg ndax xumb xumb la ñu bëri tey lu tax mënuñu dund diina dañ naan eh dafi nga nekk xumbul nga dégg kenn yéen amu leen yàpp kenn amu leen lii kii ne est-ce que loolu moo tax nit ñi di dund est-ce que yonent bi dafa ñëwoon ngir yàpp dafa ñëwoon ngir cere dafa ñëwoon ngir yonent bi lan moo ko indi woon ixraaju naas min azulumaat ila nuur génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer loolu la yonent bi indi woon génne nit ñi ci lëndëm pour indi leen ci leer gi moo tax mu ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulallah qala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba yonent bi ne xeet bi yëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ku bañ sahabatul kiram ñu ne ya rasulallah ndax nit dina bañ a dugg àjjana mu ne waaw waaw am na ñu bañ a dugg àjjana de ñu ne loolu nu muy demee mu ne man ataani daxalal janna ku ma topp rek dugg àjjana waaye ku ma bañ a topp nag yow yaa bañ a dugg àjjana kon mbir mi leer na de ku yebu ci ñun nga xam fay teg sa tànk tukulóor yi nee na ñaamonam ñaamotaa ko ɗaanono kam ɗaanotaa ko on nani ko wimi ko ñaamanam ɗanono kam resanam debbo mo kanko somo welto ana weltotako kanko so haari ana a- ko heege waranma kanko somo ɗano omo fofto an ko tampere waranma lekkal ma du sotti kaay ñu reer nga ne non lekkaaleel ma sama wàll amul problème waa ji dóor bool ma mu jeex yow ndax di nga yëg ne saf na yow loolu ngay yëg xiif nit ñi di nelaw kaay nelaw nga ne waa nelawal ma sama wàll du sotti loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla kenn du ko defal kenn bu doon loolu la yonent bi defal ko sahabatul kiram am na ku daan téer yonent bi dàllam yonent bi da koo xool yërëm ko ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla def la defal la ko ñun tey bu ñu yonent bi woowoon ne waxal loo bëgg ma defal la looy ñaan waaw man tem ma ne ko limousine tem tem ma ne ko man limousine su may dem tafsir indi ko ci bunti jàkka ji quoi gaare ko kii waaw mbay ne ko am na 4-4 rek bu may liggéey jee di ñëwaat kenn ku nekk commencé quoi ñuy bind doléance yi danañ bind suba ma ngoon kenn du wax mbirum ay alaaxira waaye xoola saxaaba bi yonent bi wax ko loolu mu ne ko dama bëgg aljanna laa bëgg soo toogee nii ma toog sa wet waaye ñu ne ko mënuma loolu de mu ne man nag loolu laa bëgg mais ni mu ne ko àjjana rek nga bëgg mu ne waaw mu ne ko aini ala nafsika bi kasrati sujud kon de del julli lu bëri bu guddee bu gaa yi di nelaw yow kon del jaamu yàlla jullil lu bari comme àjjana nga bëgg kon mbir mi ay liggéey la mbir mi ay jëf la mbir mi du ay xumb-xumb mbir mi du ay mbooloo mbir yu nekk fii di zibile ci mbedd yi di yuuxu fekk amaana yow mii di yuuxu doo dem fajar jàkk doo julli kenn du la gis ci diine lislaam munoo liir sax alquran nga yuuxu ban njëriñ la am sa bopp ngay nax am na ñoo xam ne dañoo tëdd di saw seen bopp xam nga ku jaaxaan ci kaw lalam di saw ah balaa muy xam ne ci caaxaan la nekk kañ la koy xam faj bu fajar jotee ba nit ñi di yeew mu yeewu gis waaw waaw man man ma defoon ci toilette bi laa nekk fekk mbàjj meeg darab beeg matelas bi yëpp fees dal affaire bi muy yëkkati yëf yi daan carararara ñu naan ko waa yow lii lan la bu daal xale yi ñoo fi dëddoon ñoo fi saw xale yi fekk xam na ne moom la boppam lay nax loolu mooy bu ñu nax suñu bopp gis nga tey bokk na ci aaya yi ñuy jàng ñu ne li war ci jullit alal mu'min la wax li war ci ku gëm yàlla an laa yatrukal xaq bu mu bàyyi dëgg bul gis dëgg mu ngi nii nga bàyyi ko fale nekk ci mboy mboy gi xoola am na ci ñun ñoo xam ne du ñu nelaw guddi heureusement sax corona baaxoon na fi trop war woo ngaaw a dem commencé nañ kenn mënatul nelaw ndënd yi commencé tina fecc yi sabar yi yuuxu yi takk ay rajo di yuuxu fekk benn nit moo fa nekk baare mbedd yi amer de nit ñi da ngay jaamu yàlla jaamu yàlla jarul yuuxu laa ilaha illallah jarul yuuxu jarul fecc jarul sabar mais ana diine ana lislaam ana sun lislaam lépp lépp caaxaan la lépp fola ah benn waaye nee na dañoo organiser benn affaire sama koñ mu ne guddi gi may yeewu fajar gi sàngara si butéel yi kapoot yi joint bon yi mu ne sama xol bi ñëw fii ma toog di xaar mu ne ma jékki-jékki rek kenn yagar yagar yi naan ma eh, sëñ bi duus bi mu ne ko ci xaj naan duus yéen li ngeen doon li mooy tudd yàlla sàngara si xoola butéel yi xoola ki waaye ci biti waa ji langar langar yi génn dem loolu kese moo fi nekk yéey ñuy yoox yuuxu yëpp ñi ciy langar langari yëpp fatiha moo ko luñ ko ngeen defe ne kuy langar langari li ci mokkaloo fatiha di ne da ngay jaamu yàlla ba nga dee dajeek yàlla foo jëm kon li ñu war mooy kenn ku nekk fii ci ñun toog nga fexe ba xam dëgg nga jàpp ci dëgg loolu kese mooy mbir mi soo jàppee ci dëgg nag bu yeboo asamaan si di déborder jàppal fi nga jàpp nga taxaw bul tontu demal continuel bul tontu kenn demal affaire bi sa affaire bopp la du affaire kenn moo tax aaya bi mu wàccee dane man shaa fal yu'min wa man shaa jeex na kon gëmal nga jàpp fi nga jàpp nga dem sa yoon li gën a bon ci àdduna mooy nga gis dëgg naan waa man noo seeka xaw ma nu may def sàmba xaw ma nu may def demba non xaw ma nu ki dëgg jeex na tak jàpp ci nga dem sa yoon ba pare ki la tere jàpp ci dëgg moom mu ngi jàpp ci ay caaxaanam de mooy ko waaw kon nag loolu la ñuy jàng tey beneen bi mooy tahrimu shirk shirk dafa araam shirk dañ ñu koo tere bokkaale dañ ñu koo tere te tey dëkk bi bokkaale kese la kenn du xëy suba ba ngoon gisoo ko wala déggoo ko boo ko gisul rek dégg nga ko boo ko déggul gis nga ko léegi sax bal dañ la koy envoyé taf nga ubbi nga dégg waa ji naan diw moo sàkk yàlla bu doon du diw yàlla li ma am du ko am diw moo yenu yàlla ba ci kaw dóor ko ci suuf yàlla ne ko baal ma loolu ngeen di gis seen vidéo yi de wala ba pare xam nga lu ruslu nga dégg nit ñi ne laaj taa di yuuxu allahu akbar benn mbokk barki démb dafa wax bu garaaw dafa posé question benn xaritam moo tax ko yéen lan mooy seen problème ak ku jigéen kii ngeen di wax di guddeeg bëccëg ngeen koy tere fii di yuuxu lan mooy seen problème ak jigéen ndaw si ndaw si daa bëgg a yàq sunu yoon wi duñ ko seetaan mu ne ko yéen noonu ngeen di yàqee yoonu Seydina Muhammad ngeen ngeen bañ ñun ñu wax du loolu mooy problème bi yow sa kër bañ nga koo yàq nga bëgg a yàq kër jàmbur nga ni ñi nekk ci kër googu duñ wax diw moo sàkk yàlla loolu ban diine la dégg ngeen ko wala déggu leen ko ah yàllaa jóge kaw asamaan takk ndiggam benn waay topp ko yàlla ñëw ba ci sëñ bi fekk ko mu toog mu dugg ci biir waa jooju ñëw ba ci sëñ bi ne ko ana ki jaar fii mu ne ko mu ngi ci wanag bi bale mu ñëw fekk ndeke yàlla mu ne yow yàlla yow bu guddee nga wàcc di bale ndeke nga naan yaay yàlla kon kiñ fekk mu toog ci piliyaan bi mooy yàlla ndeke yàlla bu guddee day ñëw Sénégal di bale takk ndigama di bale loolu nu ko julli di déggee ah yonent bi moom léegi teggi nañ ko fa léegi yàlla kay moo teg yonent bi moom teggi nañ ko fee ah ndax yonent bi moom nee nañ yàlla daa yónni yonent bi yonent bi ñëw ci yéeféer yi waar leen yéeféer yi tuub nekk ay julit yàlla yónni diw mu ñëw ci julit yi waar leen def leen ay ñun duñu ay julit ñun ay laa ilaha illallah yàlla yónni yonent bi mu tuubloo yéeféer yi yàlla yónni diw mu tuubloo julit yi julit yi nekkaat leneen loolu ana aaya bi du waxu waa Mali laa leen di wax de du waxu waa Guinée laa leen di wax du waxu waa Gambie li ma leen di wax ñan ñoo ko wax ah dégg ngeen ko wala déggu leen ko ah waaw lu fi des te loolu yooyu yooyu ñoo gën a ndaw yooyu ñoo gën a ndaw ci ñuy wax fii loolu du bokkaale ah yàlla tabaaraka wa taala moo tax démb sama xutba jumaa ci baatu allahu akbar laa ko doon def allahu akbar bii ñuy wax rek wallaay comprendre ñu sax allahu akbar mooy lan loolu moo tax tamit ñu am problème léegi su taxaw naan allahu akbar fekk fii am na 17 ndombo allahu akbar fii 15 a ngi fi fii moom fii ba fii waaw tànk yi moom yenn saa yi sax baaraam yi yenn saa yi sax socc bi socc bi dañ ciy takk ay affaire socc bi dañ ko wëral ay affaire waa ji naan la nii xool ma rek dem àllaaxira laa bi si na ngay dem yow boo ma xoolee ñun nañ yàlla sàmm mbokk yi taxrimu shirk shirk dafa araam te bokkaale ku ci dee safara nga jëm gis nga caaxaan yi ku ci dee jour bi nga dee direct ngay dem en direct xam nga dañuy dégg ñu ne kii bi en direct la am ñoo xam muñ dee en direct du yàlla lu xaar sax bàmmeel dañuy dee rek gaa yi dem rek yàlla taal fë ci armeel bi ndax wax yu ñàng yu xanaa déggoo yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattarna asamaan mi ngi xotteek wa tansaqul ard suuf mi ngi xar wa taxirul jibaal montagne yaa ngi daanu lu tax an daaw lirrahmani walada nee nañ yàlla am na doom xana digguñu aaya yooyu lu tax in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda kum mun a doon ci kaw asamaan xoola jibril ni mu toll mikail asrafil hamalatul arsh in kullu man fi samawat ku mu mën a doon ci kaw asamaan ñooñu lim nañ leen ñooñu ñoo fa gën a màgg yàlla mu ne ñëw leen ci kaw suuf jëlal yonent yi muhammad ibrahim ulul azmi min ar-rusul nuux isa wa man fil ard in kullu man fi samawati wal ard mu ne illa aati rrahmani abda ñii ñi li ñuy ngand ngand suba bu ñuy ñëw ci kanam yàlla xam nga lu ñuy nekk ay jaam ay jaam waaw man fi samawati wa man fil ard dafa am ku mu génne dafa am ku ci génne ah waaw su yàlla ne ku nekk asamaan ku nekk suuf jaam nga ñun ñu ne du jaam yàlla la kan moo wax dëgg ka wax dëgg yàlla moo wax dëgg yàlla moo wax dëgg ku nekk ci kaw suuf rek jaam nga te sax yàlla wane na luy wane ne jaam nga nit ñee wawle ndax sa ndey a ngi nii sa baay a ngi nii seen bàmmeel yaa ngi nii fii lañ suul fii nga juddoo bi ngay judd ay nit fekke nañ ko fii nga doon bërëngoo fii fii fii fii fii nga doon lekkee fii duus baa nga nee fii nga dee fii lañ la suul ba pare ñu ne yàlla nga xanaa ana da ngeen a xalaat ba gaa yi ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla nekk fa naan leen non du ñu yàlla de dane kaana yaakulaani taam ñoom ñaar dañ doon lekk boo reeree cere baase xam ngeen cere baase cere juñ def tiga dege def ci ñebbe ba mu saf def ci ay keccax ak ay géej du loolu mooy cere baase gaa yi naan cere baase salte nga lekk ko yàlla bu tiga dege gi bëri nag nga lekk ci ba suur nga xëy ndékki ndax neex gi mu neex bàyyi booru deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures sept heures huit heures fekk affaire bi forox na ci biir bi nag nga dégg gejje gee keccex gi naan kurr kurr nga xam ne doo yàlla wallaay nga xam ne doo yàlla ngannda awana allah awana allah afunteta afuntama ɓe wima ka allah kono andi awana allah min delloo si xel yi bàyyi caaxaan bi bàyyi famille bàyyi yenn waxi bokkaale yi bokkaale dafa araam te kuy bokkaale boo dee safara nga jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam xool ni màggee xool ni mu teddee yàlla dut ko baaraam ne ko lay nashrakta yàlla dafa ñi jàng arab fii xam nañ waa jumla boobu laam bi laamul xasam la yàlla dafa giñ ne ko la inashrakta giñ naa ci sama màggaay boo bokkaalee la yaxbatanna amaluka sa jëf yépp a yàqu ndax foofu la yàlla yam fu mu am fu mu yam mu ne ko après di nga bokk ci ñi perte ëllëg yow mal qiyaam kan la ñu wax loolu muhammad muhammad la yàlla ne boo ma bokkaalee li nga defoon ci àdduna yëpp a yàqu ëllëg yow mal qiyaam di nga bokk ci ñi perte waaw kon keneen nag ñun nag fii bala ñuy am lu ñu kontaan loo bala nga gis gaa yi di génn dënn di jibile ñu wax leen baatu bokkaale waaw ba ba kilifa gi dóoree yàlla kurpeñ pa nga déggaa yuux di dóor yàlla wala ngay yenu yàlla wala ngay yenu jibril wala ngay sone malakal mawti wax yooyu moo fi bëri ah léegi gars yi moom dootuñu wax sax wax bu ndaw parce que wax bu ndaw boo ko waxee gars yi wax bu ngand rek loolu donc moo fees ci facebook bi dem leen dem leen youtube kuy weddi lii demal youtube ba nga téléchargé nga xool bu fekkee am nga yaqiin tuuti ci sa dënn am nga imaan di nga dégg loo xam ne boo tëddee guddi doo nelaw boo amee imaan laa wax de boo ma boo amul imaan boo melee ni ñun nag mën ngaa dégg lu ne tëdd di nelaw wallahi boo amee tuuti tarfatal ayni ci ngëm yàlla di nga dégg loo xam ne boo tëddee guddi sa bët yi duñ laalante loolu moo nekk sunu réew mi kon bokkaale dafa araam tahrimu shirk beneen bi mooy wujubu tarkuhu bàyyi bokkaale dafa war chaque jour chaque jour ma joxe benn misaal ma ne yéen a ngi ni toog nan ñoo fi am ay soxna ci ci jàkka ji ku am soxna yëkkati sa loxo ok yéen ñi am soxna tey ji bu ngeen julli woon gee ba pare ngeen ñëw fekk benn waaye tëdd seen kaw laal ñu koy pañeel si kim bi nga ne sa soxna waaw mu ni oo mu ne la ko yontaa ànde kii kan la mu ne la kii moo aye tey fekk ñu ngi la toggal ginaar ñu ne la kaay de mu toggal naa ko ginaar sax sax gindil naa la sa wàll mu ngi ne ginaar neex na de ah neex na wala neexul damay laajte neex na ndax li mu neex neex di nga reer ginaar googu lu tax reeroo damay laajte nag balaa may continuer tafsir ngeen wax ma lu tax du ngeen reer ah ah da ngaa gis loo neexul lan nga moo la neexul dañ laa dendal ak keneen moo tax reeroo waaye léegi nga bu ko def yàlla yow léegi mbir mii ñu ngi taggal ginaar ñu ne la aar hirtu nga bule bool bi pam nga daw song waañ wi nga daje kuurug roof bu fekkoon ne yow am nga tuuti dencoon nga benn pistolet ci armoire bi bu nit ñi yéexee luy xew ah waa ji jël caayam jaar ci fenêtre bi nga wiiri buntu bi ndaw si waddu sër bi jaar nii ngeen di dàqante yéen ñett ñi ñu daal lan la jabaru jàmbur lañ ko fekk ah ndeysaan léegi nag yéen li ngeen bañ ngeen bugg ko indil yàlla ngeen bañ ku leen bër ku leen dendale ngeen bañ ku leen bokkaale da ngay gis koo xam ne day jékki-jékki ne jabarab yow koy wuyu téléphone yow xamagul kan la kat yow kan kan looy ree yow ko kii wax ngay ree kan la xamagul kan la mu ne la ah kii di sama xarit boobu Ayda Njaay nga ne ah d'accord waaw léegi yow nga bëgg a jël keneen allahu akbar nga bëgg a jël benn mbindeef comme yow nga teg ko palaasu yàlla nga bàyyi yàlla da pare nga ni affaire bi amul problème moo tax suñu borom dañ dul déglu alxuraan de gis nga bokkaale ni mu garawee xoola yàlla lu mu wax ci baat bi zarni zarni Moustapha Gueye mi ko daan firi dana yàlla mer na yonent baa ngi koy jàpp mu naan ko zarni ya muhammad bàyyi ma rek wa man xalaqtu wahida wa jaaltu lahu maalan mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma an azid kalla innahu kana li ayatina anid xam nga yàlla mu teg ci aaya bi mu ne sa urhiquhu sauda tukulóor yi ndeysaan ustaas bi ñu ko doon firil mu ne allah wi ma mi ƴeeng nu mo ɗo ƴeeŋetaaki yàlla nee na waajooju dinaa ko yéegal fu kenn dul yéeg tey bu ñu lay indiloon ba ci digg jaww ji fii ñu ne la yéegal ci kaw te teguñu seel ñu ne la yéegal rek ku la teg fii rek ci digg jumaa ji ne la yéegal foo jëm sa urhi loolu mooy sa urhiquhu sauda dinaa ko yéegloo foo xam ne kenn du fa jaar yéeg te yàlla bu ne lay yéegal di nga yéeg lu waral loolu ngay dendale yàlla ak ay mbindeef ngay bokkaale yàlla waxuma sax nga takk ay gàllaaj loolu tey takk gàllaaj mooy bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw la nit ñii ñu bëgg a def yàlla yàlla mii ñu bëgg a sempi samp fi ay nit loolu moom mooy suñu problème tey ba pare mu mel ne nit ñi dañ leen a masse courant pour nañu bokkaale nañu wax wax yu bon nañ ko jëmale ci yàlla akub yonent ba pare ñu ne nag bu ko fi kenn waxee nañu wax sunu bokkaale nañu samp sunu waay nañ ko yëkkati ba ci kaw nañ ko teg ci kaw yàlla bu ko wax bu kenn wax loolu mënul nekk mënul nekk yàlla mooy yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu coow mooy bëri rek waaye yàlla yàlla waaw mbokk yi kon bokkaale dafa araam bàyyi bokkaale araam war bàyyi bokkaale war waaye ñii bokkaale sax ñun dañ leen war a bàyyi parce que loolu la ñu jàng ci fiq te lañ jàng ci tawhid moo tax mu ne li war mooy tarku shirk wa wujubu tarkihi waaye wa tarki ahlihi ñii bokkaale sax dañ leen war a bàyyi kuy bokkaale boo amee xarit buy bokkaale Ibrahima lan moo ko boole woon ak papaam ak yaayam ak waa këram ak waa fameem ah keroog ba Ibrahima jëlee ba ay bagage am ay valise am yanu ay bagage am di dem nit ñi di ko téye lan la wax aaya bi keroog ba Ibrahima laa yenoo valise am di génn kër gi am ci kër gi ñu koy téye naa nga Ibrahima laa oto wat joodo oto wat lu Ibrahima wax ah wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagda hatta hatta ma ne maa ngi yéen yéen waa kër gi maa ngi yéen sama diggante ak yéen nooneel ak mbañeel moo fiy nekk ba keroog ngeen di gëm yàlla kese bàyyi xërëm yi janata moo tax inna ibrahima kaana umma yàlla jël ibrahima def ko nation mu nekk imaamul muwahidin moom kenn soo jëloon àdduna bi yëpp li ñu am tawhid nga teg ci balance nga jël ibrahim kese ibrahima daaneel leen inna ibrahima kaana umma qaanitan lillah walam yaku minal mushrikin yàlla nee na ibrahima musta bokk ci bokkalekat yi ndax dafa déclaré bu leer dafay judd rek yaay ji bëgg a dem mu ne ko yaay mu ne ko ah mu ne ko kuma moom mu ne ko yow mu ne ah mu ne maa la moom mu ne ko yaay yow ku la moom mu ne ko man sa papa mu ne ko sama papa mu ne bu ñëwee nga laaj ko bi mu delloo ci jëkkër ji mu ne ah xale boobu ñuy wax dafa mel ne maa ko jur yaay papa ji ne ko lu xew mu ne ko kaañ dem nga xooli mu ñëw Ibrahima jàmbaat ne ko yaay ku la moom mu ne ko sa papa ngi nii moom moom mu ne ko papa yow ku la moom mu ne ko Namruud buuru dëkk bi mu ne ko Namruud buuru dëkk bi ku ko moom yow problème nga fi bëgg a indi ah loolu la allahu akbar loolu la nit ñi di bañ di parce que xam nañ ne chaîne bi boo ko toppee fu muy teeri ci yàlla lay teeri waaw loolu la nit ñi di bañ tey wala boo nee ñu ne bu leen déglu alxuraan bu leen déglu ñooñu bu leen lii fii jàkka ñoom diw la kii sàmba la kii demb la bëgg laa takkal benn grade verte zone rouge pour boo rombee rek gars yi ba pour bañ dëgg yàlla bi leer loolu kese la de seen coow lu bëri yi ak seen wax yu bëri yi ak seen nangam yëpp du lenn lu dul dëgg yàlla bi bu mu leer loolu kese la lislaam kan moo ko fi indi du yàlla du yàlla moom moom lislaam kan la yónni na ñëw jàngale lislaam du sayyiduna muhammad alquran bi waxu kan la waxu yàlla léegi naka la ñuy jàngee yenn aaye yi ci alquran mu ne weng leer ñu bëgg koo ignorer kon loolu mooy sunu dars tey ñu ngi guddal ci introduction bi ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ñaari aaya yi ñeenti aaya la woon sax parce que aaya 105 ci la bokkoon 106 107 waaye maa dagg ñetti aaya def ko ñaari aaya juróom la woon maa ko def ñaar parce que dafa am aaya yoo xam ne wax naa leen ne kenn du ci yegg ñu koy bombarde di dem mënul nekk bismillah bismillah قل يا أيها الناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي أتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين بارك الله فيك جزاك الله خيرا nu yàlla fayal la yiw sunu boroom jalla jalaaluhu wa asa kamaaluhu mbokk yi chaque jour du deñ di ñu jàjj di ñu woo di ñu yee pour ñu tegu ci raay bi yàlla tabaraka wa taala wax na sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam qul waxal yow muhammad yaa ayyuhan naas eyeen nit ñi kan la yàlla kan moo woote yàlla ñan la woo nit yi yaa ayyuhan naas eyeen nit ñi allahu akbar fal insaan mahalu nisiyaan doomu aadama baatu naas mooy baatu fàtte fàttekat doomu aadama dafa mën a fàtte moo tax bi ko yàlla di woo yàlla ne ko ee yéen fàttekat yi dëgg la dañoo fàtte lan moo doon sunu mission ci kaw suuf lan moo taxoon yàlla sàkk ñu biñ ñëwee fii lan lañ fi ussi woon borom bi nee na walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya aadama laa njëkk signal contrat moom mi seen maam mu fàtte dañoo fàtte ñun ñëpp fàtte nañ kon jaadu na moom yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ñu fàtte mu ne ñu yaa ayyuhannaas yéen fàttekat yi in kuntum fi shakk bu fekkee da ngeen nekk ci sikki sàkk min diini ci sama diine bi ngeen ci sikki sàkk di dute est-ce que lii dëgg la est-ce que lii wér na parce que tey ndeysaan boo xoolee l'islam ak ni ñu ko diaboliser ci adduna bi ak ni ñuy xeexee jullit ñi ak ni ñu leen di reyee ak ni ñu leen di tëjee yenn saa yi boo amul yëg yaqin dëgg da nga naan lii du dëgg voilà da nga ci sikki sàkk est-ce que lii wér na est-ce que lii dëgg la waaw li pa benn pa doon ma noo mu ne yéen man li ma jaaxal seen diine ji ay xale kese ci nekk xanaa yéen diine xale la ndeysaan diine xale loolu la ñu daan wax ci diine xale yi amoon nañ benn paa bu ñu daan àndal Mamadou Thiam la ko yàlla yërëm ndeysaan benn paa mos na génn rek dugg ci jàkka ji julli xabdu mu pare benn paa ne ko di ci Thiam ci diine xale yi nga nekk léegi lii lii lii léegi da nga def di nga topp na xale yi lii diine xale la kan moo njëkk a def nii ci àdduna ah ku njëkk a def nii ci àdduna non dégg gu ma ku njëkk a def nii ci àdduna Muhammad kooku xale la yaakaar naa mag ñi fi moo leen mag de ñu ne loolu diiney xale ci diine xale yi léegi ngeen nekk diiney xale ak diine mag loolu yëpp sikki sàkka la ndeysaan di sikki sàkka bu fekkee da ngeen bëgg a sikki sàkk ci diine yàlla ji di ci am ay dut man de man Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi leen di yëgal ne falaa a'budu allazina ta'buduna min dunillah man de du ma jaamu lii ngeen di jaamu te du yàlla sikki sàkk leen waaye lii ngeen di jaamu man du ma ko jaamu voilà nit dafa war a am fulla am pas-pas nit ñi lu ñu la diaboliser diaboliser jàppal ci li nga jàpp parce que mooy dëgg falaa a'budu du ma jaamu allazina li nga xam ne yéen ta'buduna moom ngeen di jaamu min dunillah te du yàlla aaya bu garaaw a ngi nii nag allazina yéen ñi jàng arab lan la allazina lan la ismu mawsul kon yàlla waxul fii ay bant kon loolu loo ciy dégg mooy ay nit a ngi jaamu ay nit seen moroom parce que yàlla ñi am xel lay waxal waxul ñu amul xel allazina ismu mawsul la moom man ñooyam saa yoo déggee man wala allazina yàlla ñi am xel lay wax aaya bi lan la wax fala a'budu lu mu ci rek allazina taabudun man du ma jaamu yéen ñi ngeen di jaamu kon am na ñuy jaamu ay nit soo waxee ñu ne la non ñun jaamu ñu nit ñun ah lii leer na te xam ngeen ne yéen Sénégal waxuma àdduna bi mais ci Sénégal la ñu nekk Sénégal am na ñoo xam ne dañ leen fi def ay yàlla wala man gis naa vidéo boo xam ne benn waay moo taxaw naan ko yaay sunu yàlla yaay sunu yaay sunu ñun say xaj lañ ah gis ngeen ko wala gis leen ko waaye bu leen ñu sonal ma ne gis ngeen ko wala gis leen ko mu ngoog xoolal nit taxaw naan nit yaay sunu yàlla yaa ya mais mais mais allahu akbar ñun say xaj lañ nga tim nit naan ko ñun say xaj lañ xaj a taarifu na xaj taarifu na xaj naka la nit di waxee nit ñun say xaj lañ xoolal xoolal xoolal suufe gii xoolal suufe gii nga suufeel sa bopp xoolal toroxlu gii li nga xam ne yàllaa ko moomoon yàlla nga dem di ko defal nit loolu lan la ci lan la bokk ah vraiment naa ne en tout cas daal doy na waar daal yal nañu yàlla sàmm mu ne walakin waaye abudullah damay jaamu yàlla man allahu akbar du ma jaamu lii ngeen di jaamu te du yàlla maadaama du ma jaamu lii ngeen di jaamu te du yàlla walakin abudullah alladi yatawaffakum yàlla moom nga xam ne moo leen di rey moo leen di faat seen bakkan ci loxoom la nekk moo leen di dundal di leen rey man yàlla moomu laay jaamu yaqbidu arwaahakum fa yumiitukum ëllëg ak si biir lu ngeen wiiri wiiri wiiri wiiri ci loxo yàlla ngeen di mujj moo tax bu ngeen déggee nit faatu na ñu ne inna inna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon yàlla nu moom kon man duma jaamu kenn ku dul yàlla kooku nga xam ne moom moo ñuy rey yemu ci mu ne yàlla moomu nga xam ne wa umirtu digal nañ ma wa umirtu sant nañ ma an akuna minal mu'minin gis nga loo wiiri wiiri wiiri liñ la sant mooy bul beru àndal ak jullit yi parce que mbooloo mooy an akuna minal mu'minin loo rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy bul fedd géew demal nga ànd ak jullit yi moo tax lislaam diine mbooloo la jaamu yàlla bu ñuy def yëpp lan la dañu bëgg mbooloo julli juróom fan lañ koy defee fan lañ ñu wax ñu defee ko ah aj bi ñaata nit ñoo koy def koor gi ñaata nit ñoo koy def bu ñuy tabaski ñaata nit la lislaam diine mbooloo la kenn waxul nit demal nga fedd géew nga toog fale yow kenn nga wut sa kur kurus ak sa der ak sa satala nga toog di sikar te di yàlla yow kenn loolu loolu du lislaam warkaawu maa raakiin kunu maa sadiqin gis nga lépp mbooloo la والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آية يب مولو لن يالا سانت وأن أقيموا وجوهكم جسنجا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا سخلا يالا دي وخ إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا سانق نيوغي دون وخ يا أيها الناس يا أيها الناس ci alquran ñaata la ku ko xam samedi am nga montre yaay xanaa si ci alxuraan ñaata la vingt la premier bi mu ngi suratu baqara ban aaya la bu mujj bi lan la fan la nekk ban saar Barça ak kan ñoo doon fubal barki démb ah Barça ak kan ñoo doon fubal waaye wax leen ma ko Sadio Mané équipe bi mu nekk nu mu tudd Liverpool du ma Barça ñoo doon fubal ku ku dugal bi Liverpool yi ñaata la Liverpool dóor ah Sadio Mané fubal barki démb fan yi Sadio Mané football la wala footballul xoolal ñëpp bañ nañoo toon ci xoolal gars yi dañoo seetaan ba bokk
Je vais pour Barça dans l'ordre.
non waxuma Guèye ma ne Sadio Sadio Mané football na semaine bi wala semaine wu ah kañ la gëj a football semaine bee paase ok loolu laa bëggoon du moom moo ñoom ñoo gañe woon ah ñaata bi la dugal ah mu ko gis nga maa ngi laaj fi ay alxuraan yi kenn xam ko te xam nañ Sadio Mané bi bi bi mu dugal moo kan ñoo dugal moo kan ñoo dugal ah équipe bi ñaata lañ ko dóor 3 kan ak kan ñoo dugal bii bismillah Sadio Mané moom mooy kenn ke- ñeneen ñaar ñi waaw gis nga lii mooy suñu problème suñu diine ji foog ñu gëm ko mbokk yi foog ñu xam ko foog ñu koy gëstu foog ñu koy jàng foog ñu crise ci luñ ñu laaj ñu xam ko waaye bu fekkente ne xamuñu dara ci suñu diine dañuy nekk ay àll toppee di làmbatu te ñun dañoo war a nekk ay soldat pour diine ji fu ñu waay fekk laaj ñu dañoo war a tont fu ñu waay wax dañu war a ah voilà saxaaba yi noonu lañ meloon parce que yonent bi da doon jëloon formé leen jàngal leen moo tax kenn ci ñoom yonent amul sallallahu alayhi wa sallam amul woon problème mu eh, man yonent bi nekkuma fi déedéet ki gënoon tuuti ci saxaaba yi bu fekkee dagan naa wax bu fekkee dagan naa wax mën naa représenté saxaaba yëpp fépp ci adduna bi parce que yonent bi noonu la leen yaree allahu akbar noonu la leen jàngalee koo ci gis da ngay xeeb sa bopp da nga yaakaar ne kii laa ilaha illallah kii xool leen wax naa ko démb xutba juma amr bi mu demee ci rustum ñoom bi ñu déggee ne yónni nañ kenn ci jullit ñi moo ngi ñëw armée bi ñu am ci seen àdduna yépp lañ génne lal ay tapit génne ay ñay génne lépp mu ñëw war mbaam ñu yaakaar na ci tapis rouge lay jaar mu wàcc ko ñëw toog fauteuil bu ngand piliyaan yooyu ñu teg mu daal di toog ci suuf génne soccom di socc rustum waaru ne waaw kii moom ñu ngi koy woo ci àdduna di ko woo pour mu tiit moom faale wuñ kii xanaa mooy amiru gaa yi waaw yow amru yow loo fi wut lan ngeen lu tax ngeen xeex nii ci àdduna bi dugg di tasaare diine lan la mu ne ko yàllaa ñu yónni ibtaasana allah yàllaa ñu yónni pour ñu génn ku ko neex ci jaamu gi ngeen di jaamu ila ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ngeen bàyyi jaamu nit ñi ngeen jaamu yàlla ngeen bàyyi caaxaan yi ngeen topp ngeen ñëw ci maandu te lislaam mu koy wax di ko wax di ko wax ba càgg mu ne ko waaw amri yow lii ngay wax nii bu ñu bañee nag sa tët tët tët bi muy wax ak bi kàddu gi di daanu amri mi ngi takkoon jaasi ji jaasi ji mbar mi weñ la weñ mbar mi mooy fi jaasi bi di dugg mbubu mbubu jaasi bi da koo xëcc affaire bi naan kararararar mu tàllal ko ci kaw ne ko kii mooy nekk suñu diggante gi yéen su ngeen bañee ñooñu kenn réyul woon seen kanam parce que dañ leen a formé dañ leen a jàngal ba kenn ku nekk ci ñoom mu ne ko yow yow yaay xanaa yow yaay amiru gaa yi mu ne ko eh yow de boo gisoon Umar wala ñoom Ali ak ñoom Aboubacar xaw ma foo jëm te noonu la demee Seydina Ali radiyallahu anhu wa ardaahu keroog xaybar dafa wànnetoon yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ñu xëyee suba ki war a ubbi dëkk bi waa la waa waajala waajoo xam ne la yonent yàlla bi bëgg na ko moom bëgg na yonent yàlla bi yàlla bëgg na ko moom bëgg na yàlla ali si aboubacar mooy nettali nee na musuma bëgg ndomba tànk lu dul keroog ndomba tànk musuma ko bëgg lu dul keroog nee na ñu julli fajar rek allahu akbar ma mu ne yonent bi sëlmal jàkkaarloog ñun comme ni imaam yi di def jàkkaarloog mbooloo mi mu ne ma gis yonent bi ne nii première sàppe bi ca ruq ba ne nii di ñëw ne nii di ñëw nee na yonent bi ñëw ba ci man rek ma ne ah ndeysaan man la mu ne bi ñu rombee ñee ñoom bi ñu rombee gaa yi njëkk ma ne ah kon ay man la maa ngi ci digg bi toog nee na yonent bi ñëwoon xool ma ma xool ko rek yonent bi dem rek mu ne ma ne nii topp baat topp topp mu ne ma ne nii quoi topp bopp bi nee na yonent bi romb na ma ne kon Ousmane la mu romb ma ne mu ne mu ne ah Umar la ma ne ay ndeysaan Umar texe na nee na yonent bi romb Umar Umar ne nii première sàppe bi jeex mu ne wow kon kii kan la war a doon saxaaba yu mag yi jeex nañ di ngeen mën a yonent bi dem deuxième sàppi dem troisième sàppi quatrième sa jàkka ji jeex yonent bi ne ana ali la ilaha illallah ana ali ñu ne ko yonent dafa dafa dafa wànneen mënul gis amul ku ko indi mu ne dem leen ngeen indi ko bilaal dama nga indi ko ci gàttal bi mu ñëwee ba yonent bi jël jaas ji jox ko mu song tata yi bunt bi nga xam ne Ali moo ko dajji def ko défendre di ko baare loxo bi nii yor beneen jaasi bi nii ci loxo bi défendre nii nga xam ne bàyyi bu ñu ko gars yi bu ñu ko songee bu ñu dóoree nii lay def bi mu xeex bi jeexee bi mu tegee bunt bi téeméeri saxaaba ñoo ko yëkkati te moom zacc la ko defoon di ko baaree téeméeri góor ñoo jël bunt bi di ko di ko àndal yoon bi téeméer kon ñooñ duñ ñëwoon noonu ñu ndaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu incha allah dars bi tey fii la yem incha allah jazakumullah xeer